asalaamaaleykum askan bi ñuy seetaan fii si Star TV da leen si jàmm si kër gi bokkee ñu ànd ak yéen ci xibaaru marax yi ngeen ànd ak Omar Tunkara ci bopp xibaar yi dinañ dem seeti ji Project Aid Gambia di kuréel gi nga xam ne nag war nañ ne ñu ngi fii ci Gambia waaye tamit wër àdduna wër nga képp ñu ne ñoom ñooy yëkkati lu ak ñeenti ventilators mooy gaz yi nga xam ne nag dañ koy jàppale ñu demee ba nekk si diggante daal di sox soxla leen di jàppale pour ñu nokki war nañ ne jël nañ ko daal di koy may Ministry of Health mooy jër bi dénk wàllum paj mi ak wér gu bi ci réew Gambia fële ca Libanon nag si fa nekk rawatina suñu doomu jigéen maanaam daal Gambia seen xale jigéen yi nekk foofu ca Libanon dafa am doo xam bi nga amee nag ñu ngi ko doon def ba tax na dañoo demoon nag dem foofu nag daal di yàq béréb booba di oote ne daal ñoom dañoo bëgg a ñëpp sete dañoo bëgg a pour nguur nguur gi nag jàppale leen jaarale ko si moom consul bi nekk foofa mbokk yi Mali nag euh, seen i coup bi ECOWAS fu mu toll nii seen kilifa yi jóg nañ ne daal dañoo bëgg Ibrahim président Ibrahim Aboubacar Keïta nag pour ñu delloo ko ci xilaafa gi parce que ñu ngi ko génnee woon nag ci ay fan ci ginnaaw ci euh, bopp li di euh, réew mi waaye nag fu mu toll nii réew li nga xam ne nag moom mooy ECOWAS seen i kilifa yi nee na nag dañ bëgg pour ñu daal di koy delloo foofu la nag ci Mali fu mu toll nii opposition bi nag ak ñi nga xam ne ñoom ñooy soldat yi def coup d'état booba tàmbali nañ seen i waxtaan ak toogaay euh, pour ñu xool seet naka la ñooy sampee nag transitional government maanaam nguur boo xam ne moom mooy naka gum foofu fii ba balaa ñuy def élection nag ci réew moom mbokk yi yooyu ak yeneen xibaar dal si jàmm ñu ànd ak leen si jàmm mbokk yi Project Aid Gambia international NGO mooy kuréel gi nga xam ne war na àddina euh, ñoom nag ak benn ak jaaman embassy bi nekk fii ci bureau Gambie ñoom la yëkkati lu toll si fanweer ak ñeenti ventilateurs muy nag euh, gaz yi nga xam ne dañ koy jàppale nit ñi ci lopitaan yi bu ñu demee ba soxla nokki bu ñu nekkee si diggante ak i tamit lu toll si fukk ak juróom-ñetti lalu lopitaan daal di koy may ministry of health bu Gambia mooy jërëm dénk wàllum paj mi ak wér-gu-yaram ko defee si euh, mbootaay boobu nag seen i headquarters bi nekk foofu la ca Manjai Kunda foofu lañ daal amale li nga xam ne di ah, ndaje mooma dañuy dem seeti ji ah, Seydou Camara si xibaar boobu mu andi si Project Aid Gambia yëkkati nañ lu toll ci fanweer ak ñeenti ventilateurs mu di jumtuwaay yi ñuy jëfandikoo pour aar nit ñi sonn lool ci jàngoro coronavirus may leen ngelaw bu ñuy nokkee àggee ko réew mi ci xeex jàngoro coronavirus bi. juntuwaay yi nag ñi leen ko àggee mooy ay compagnie yu nekk foofale ci réewu jaman yi dina am yeneen jumtuwaay yuy ànd ak ventilateur sile yooyu tamit yëkkati nañ ko daal di ko jébbal réew mi te yooyu tamit ñu ngi ko jëlee foofale ca réewu Jamani bokk na ci tamit lu toll ci fukk ak juróom-ñetti lal yi nga xamante ne lal yi lopitaan la daal nañ ko àggee réew mi lal yooyu nag ñii di SN University Medical Center foofale ca réewu jamani ñoom ñoo ko àggee réew mi ndaxte yàgg nañ di taxawu réew mi ci fànn woowu depuis atum 2019 ak atum 2020 yëkkati nañ tamit ay lal yu toll ci fanweer ak juróom-ñeneent yooyu yëpp ay lal yu jëfandikoo la ci réewu jamani ba noppi waaye lal yu baax la ñu daal di ko àggee réew mi ci njiitalu Mr Thorsten ak Bakatshi commercial director and deputy CEO bu SN University Medical Center bi ci ay kàddoom nag mu ne am nañ mbégte ak kontaante pour bokk ci luy yokk buntu paj mi fii ci biir réewu Gambia te tamit am na yaakaar ne daal jumtuwaay yi ñu àggee réew mi dinañ ko jëfandikoo mu àgg ñi nga xamante rek ñoom ñoo nekk ñi tawat ñi waaye tamit ci ay jëmi jamono dinañ fexe ba gis ne dina am ay jumtuwaay yi nga xamante ne dinañ ko indi fii ci biir réew mi pour réew mi daal di ko njëriñoo ci buntu paj mi jumtuwaay yi nag yëpp dañ ko jëfandikoo ba noppi mu di second hand waaye nag jumtuwaay yu baax lañ jumtuwaay yi nga xamante rek dina dimbali réew mi pour ñu xeex doomu jàngoro ji mu di coronavirus te tamit ñëw na ci waxtoom ci jamonoy jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel ci mbas mi ventilateur si nag buñ ko xaymee ci kopparu dalasi dina dem ba toll ci fukk ak benn million ci ci réew mi jaamaan embassy bu nekk fii ci biir réew Gambia ñoom tamit ñu ngi béy seen waar ci jàppale réew mi ci xeex doomu jàngoro ji ndaxte am na ay jumtuwaay yi nga xamante ne war naa ànd ak ventilateurs yi ñoom nag ñoo koy dépassé te nag buñ ko xaymee dina toll ci four hundred thousand dalasi mu di ñeenti téeméeri juney dalasi loolu nag dinañ ko dugal ci bato su ko defee ñu daal di ko àggee réew mi ci num gën a gaawee jaamaan embassy bi nag nee nañ ñoom am nañ mbégte ak kontaante pour bokk ci projet bi pour jàppale réew mi ndaxte réew mi dañoo soxla jumtuwaay yi ci jamono yiñ toll ci xeex doomu jàngoro ji mu di coronavirus. ci beneen xibaar tamit mu am ay face mask yi nga xamante ne ni Ministry of Health and Regional Health Directorate bu CRR ak North Bank Region ñoom ñoo lëkkaloo ak Project Aid Gambia ñu daal di joxe lu toll ci ñaar fukk ak ñetti junne. face mask yi nga xamante ne dinañ ko jëfandikoo pour ñu aar nit ñi muccal leen ci wàllaate bu bari bi ci doomu jàngoro ji face max yooyu nag tasaare nañ ko ci eh, tund yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci biir lii di réew mi eh, te nag am na ay buntu yi nga xamante ne ñu ngi ci roon nguur gi njëriñoo nañ si waaye tamit Edward Francis Small Teaching Hospital bu nekk ci capital bi di jul njëriñoo nañ ci face max yooyu Project Aid Gambia nag continué nañ di joxe ay face max fii ci biir réew mi bu jàngoro bi tàmbalee benn tey lu toll ci fanweer ak ñetti junne face max daal di ko tasaare fii ci biir réew mi Sonamax yi ñoom ñoo ko nekk di defar fii ci biir réew mi liñ ci jublu nag mooy pour fexe ba gis ne nit ñi si war a jot dinañ ci jot pour aar seeni bopp ci doomu jàngoro ji Seydou Camara Star TV News. mbokk foofu la ca Libanon ci oote bi nga xam ne fan yëpp nag xale jigéen ñu ko fay def mooy Gambie nag seen doom yi nag foofu la ca lii eh, ñu dem daal di yàq foofu li eh, si nibalu lii di nguur gi kàddu yi nag ki ko déggal mooy kii si fa nekk di Seeku Siisee mu ne nag xale jigéen dañoo bëgg a ñëpp siwaat ci réew Gambia moo tax daal ñu def seen doxam ñattu bi waaye dañoo mer nag moo tax ñu dem yàq nga xam ne nag moom di di euh, béréb booba te béréb boobu sax ñu ne nekkul nag euh, Gambia nag ñoom ñoo fa mu wala ba nguuru Libanon bi waaye nag kansule bi ci boppam ki mooy ki fa toogal Gambia kooku moom moom li di euh, place booba daala ci am la seeta si xibaar boobu mu ànd si yaatal ñoom ñi def ay doxam ñaxtu foofa ca Libanor pour rek ñi daal di leen delloo ci fii ci biir réew mi daal ñu rek wax ne ñoom den bëgg a ñib si su ko defee ñi daal di dellu ci fi nga xamante nag mooy seeni i njaboot waaye itamit nag wax ne ne dafa mel ni ñi fa nekk di liggéeyal Gambia maanaam di séentu wàllum bitim réew ma foofu dafa mel ni dañ leen di mooyu moo taxoon nag ñoom ñi daal di génn di def ab doxam ñaxtu kansul bi nag ci boppam daal di ekkiti ab tuuma teg ko ci ndoddu kii di Lovett di wax ne kii di Lovette dafa nekk di yàq diggante doomu aadama yi ak nguuri président Adama Barrow loolu moo tax nag muy daal di wax ay wax yu ñaaw jëmale ko ci lii di nguur gi waaye nag ab doomu aadama boo xam ne moom jigéen la foofa ca Libanon rek bokk ci ndefaay doxam ñaxtu wax ne ne daal kii di daf leen nekk di leen jàppale rek su ko defee ñi daal di war mën a dellu ci fii ci biir réew mi nekkut ne dafa bëgg a nekk di yàq lii di turi nguur gi fii ci biir réew mi waaye Cissé di council bi ci boppam ak spokesperson bi daal dina rek wax ne ci jamono jun nii yàqute bi nga xamante nag ñoom doomu aadama yi génnoon di def ab doxam ñaxtu ci nekk na bëre bu nga ne nekkul nguur gi ci boppam moo ko daal di moom li nga xamante nag mooy den ko daal di tabax foofu su ko defee doomu aadama yuy nemmeeku foofu noonu te itam nag di séntu doomu aadama yu fa ne te fàkkee ko fii ci biir réew mi ñi daal di seet seen ñi moo tax nag daal di defar li nga xamante nag mooy tabax boobaa waaye nag ñi buñ doon def ab doxam ñaxtu dafa am yàqute yi nga xamante nag daal di ñu ko rek def ci lii di bëre boobaa Cissé spokesman bi ci boppam daal dina wax ne ci jamono juntoon ni loolu waroon naa ñàkk ndaxte nag lii di doxam ñaxtu bi sax doonoon na loo xam ne waroon na ñàkk am foofa ca Libanon waaye nag wax nañ ne lu toll ci fanweer ak juróom benn passeport lii di nguur gi wax ne ne tàmbalee nañ pour daal di ko defar su ko defee ñi daal di delloo ci jigéen yooyu fii ci biir réew mi Dado Cham Star TV. moo koy ñu sant gërëm daado caam ci xibaar boobu su ko defee ñu dem seede ji président bu Network of Girls for Human Trafficking.

moom moo andi tardement ak jafe-jafe yi nga ne xale jigéen yooyu nag ñu ngi koy dund foofu la ca bitim réew Seydou Camara la ñuy teewlu ci xibaar boobu Fatou Diagne mi nga xamante ne moom moo jiite kuréel wi taxaw temm di xeex pour takkal jaay bi nga xamante ne moom la ñuy jaay suñu jigéen ñi ci réewu araab yi gaaral na ay kàddoom nag di xam ne ne moom sax mosoon naa bokk ci jigéen yi nga xamante ne jaay nañ leen ci réewu arab yooyu nekk foofule ci tund bi gën a ràññee ci Asia ci atum 2015 nag lañ ko jaay ci réew yooya moom kii di faat Diagne nag continuer ay kàddoom di xamle ne mu ne nguur gi nag nekkuñ di def li leen war pour jàppale Gambien si nekk foofale ca réewu araab yooyu pour delloo si leen fii ci biir réew mi loolu moo waral jigéen yu bari ñeme ñu ñoo génn pour wax li leen nekk di dal ci réewu araab yi mu ne tamit anam ak bot bi nga xamante ne moom la ñuy xoolee jigéen ñooñu bu fekkee ne nettali nañ seen jaar-jaar loolu tamit njàqare la ci jigéen yooyu Fatou Diagne continuer ay kàddoom sax di xamle ne ci weeru august ñeenti fan yi explosion bu xew foofule ca réewu Libanon ci seen capital bi di Beyrouth waral na am na Gambien yu jigéen yu bari yi nga xamante ne ni ñàkk nañ seen bérébu dëkkuwaay yi amatuñu fu ñu dëkk foofule ca réewu Libanon waaye tamit ñenn ci ñoom soxla nañ garab te garab yooyu mënuñu ko am ndaxte nanguñ leen a faj li ko waral nag mooy ñoom der yu ñuul lañ ndaxte nee nañ am na ñu bari ci ñoom daal buñ demee pour faju dañ leen dee wax ne ñoom der yu ñuul lañ kon nag duñu leen mun a faj foofare ca réewu Libanon faat Diagne continuer di ñaax nguuru réew mi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk private sectors yi pour ñu jàppale juddub réew yu nekk foofa ca réewu Libanon su ko defee ñu delloo si leen waat fii ci biir réew mi waaye tamit fexe ba gis ni jaay bu ñuy jaay jigéen yi ca réewu arab yi dinañ ko taxal Seydou Camara Star TV News. mbokk yi ñu sant xibaar boobu su ko defee dañuy jàll dem seeti ji fañ koy tàmbalee nag mooy ci réewu Mali foo xam ne nag fu ñu euh, ne nag ñoom ñoo lii di ECOWAS ñoom wane nañ daal dinañ fa yóbbante ay nit wala boog ay envoy ay borom nombal yi nga ne dañuy euh, delloo li nga xam moom mooy li nekkoon maanaam daal delloo président mi nga ne moom moo jiitoon rek parce que luwaa nag moom la daal di euh, ràññee moom lañ faloon nag ci yoonu démocratie daal koy teg si xilaafa gi ci vidéo conférence bi nga xam mooy

ko rit nag mooy président bu Niger mooy kii kilifa lii di Niger seeni njiit bi euh, di Mouhamadou kooku nag mi nga xam moom moo jite ECOWAS fu toll nii moom moo daal di jàllale nag kàddu yooya. Mali nag fu nii ñu si jafe-jafe yi métti parce que nag ñu ne.

moo di di daanaka capital bi nag di Bamako ak uh, li ko wër jàpp ak ñoom nag moom mooy président bi di Keita ak premier ministre bi nag di Boubou Cissé uh, ne nag fu mu ñoom soldat nag jël na nit yi uh, réew mi nag comme ni ko war a léegi nag oote nañu ab ndaje ak li nga xam ne nag moom moo di di opposition bi pour ñu daal di koy waxtaanee ci wàllu waxtaan ak opposition bi foofu la ca lii di Mali la ñuy des ba léegi. ndax nag Mali seen junta bi jiite ko nag di ami colonel Assimi Goïta ñoom nag jël nañ nguur gi ci loxo moom kii di président Ibrahim Aboubacar Keita ci talaata bi gën a nag ko defee fu ñu toll nii wane ne senior opposition leaders maanaam ñi nekk ci opposition bi ñoo xam ne ay kilifa lañ borom mal tànka tàmbali nañ di toog ak soldats yi pour waxtaan ñoom ni ñuy def ba samp li nga xam ne nag moom mooy seen nguuru coalition li yëpp nag mu ngi xew si jamono bi nga xam ne adduna bi yëpp nag ñu ngay ñaawlu euh, coup d'état bi nga xam ne def nañ ko ba génnee foofu ki nga xam ne nag moom mooy président bi léegi nag ñu ngay oote ne dañ ko war a delloo foofu moom ak prime ministre bi nag di Buubu Sise ñu ne nag am na nag mandarga yi nga xam ne opposition bi gisoon nañ ko teeloon la ñoo xam ne daal ne li ni mel dafay waaj am foofu la ca Mali maanaam daal soldat yi bëgg nañoo def coup d'état foofu la ca Mali parce que ñoom euh, opposition bi yàgg nañuy oote ne daal ne président bi dafa war a wàcc daanaka lu war a wàcc waaye nag mu toll nii wane ne ñoom soldat seen bopp daal ci kàddu nga xam ne garal ne ko mooy këjjute ñu ne ñoom daal li def nii daal nekkul loo xam ne ne ndambu kii kii la wala ndamu kële maanaam ndamu Mali yëpp yëpp la te ñoom li def nii daal mooy ñu ne loolu dañ see oo ñëpp ñi bokkoon na si ko nguuru euh, Ibrahima Aboubacar Keita ñoo xam ne seen loxo taxu deret wala boo bokkuñ si njuuj njaaj ci réew mooma ñu ne ñoom yëpp daal leen leen boole si coppite bi nga xam ne nag ñu ngi koy def seen i réew te léegi daal ibbi nañ li nga xam ne nag moom mooy réew bi ibbi ne nag moom mooy li di jaww te foofu la samali ñu ne nii moo nekk ñaareelu coup d'état boo xam ne def nañ ko si diiri juróom-ñetti at mbokk yi benn tey su suñu mujjantali xibaar ci bitim réew ginnaaw nga xam ne nag wane ni international communauté mooy euh, réew yi nekk foofu ca bitim réew ñu ngi ñaawlu euh, junta bi maanaam soldat yi nga xam ne def nañ ab coup d'état ne comme nag soldat yi amatuñ yaakaar wala boog ndimbal bu bàyyeekoo ci ñeneen am nañ nag ndimbal bu bàyyeekoo seen biir réew ci benn opposition party bi ñu ooy Rally for Patriotic Forces opposition party la boo xam ne mu ngi foofu la ca lii di réew li di Mali te ñooñu pare ne pour jàppale gars yi i toogaa pour waxtaanee nguur gi ci boppam euh, seen liggéey Eh, ki jiite nag lii di eh, lii eh, booba mooy nag parti booba seen stratégie comité bi di moom kii di Choguel Maïga moom nag ci ay lii di adresse bi nga xam ne waxtaan na ko askan bi mu ne Republic of Mali mu ne si 1985 dafa amoon nag ay sarta yu bëri wala bokk nangutoo yu bëri nga xam ne nag dañ koo xaatimoon nangutoo yooyu nag mu ne mënuñoo jékki-jékki rek génn si parce que loolu dafay mel ni dañoo yàq li ne nag moom mooy United Nations Convention bi mooy sarta yi ne nag ak nangutoo yi nga xam ne dañ ko tëraloon ci àdduna wër nga képp te ña mënuñoo toog nag ne opposition movement bi ñoom nag yàgg nañu oote ne ne Ibrahima Aboubacar Keïta dafa war a wàcc parce que ñu dafa amoon naka njuuj njaaj amoon naka ci nguuram bi euh, comme mu réew mi tamit naka mu doon euh, euh, Committee for Salvation ne dañoo ne ko si télévision bu Mali mooy sa National TV bi wane ne seen booda ak i tamit mooy xam bu suuf si ak jaww ji fu mu toll nii nag ibbi nañ ko te léegi nit ñi mën nañoo dem doxi seen soxla si jaam ak salaam mbokk yi loolu moo nekkoon sunu mujjante rek xibaar man Omar Tunkara maa maa leen ko nekk di àggee euh, Basirou Sall moom moo nekk ci di di caméra bi euh, moom kii di euh, Sara Camara moom moo teewale di xibaar yi Mbaye Mbuub moom moo nekk ci machine bi jërë ngeen jëf wasalaam